asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu eh, auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani laa hawla wala quwata illa billahi alil asim mbokki jullit yëpp mbokki talibe yëpp ñu ngi jiital ci nuyoo bi Cheikh Mamadul Muntaxal Bachir di ko ñaanal sunu borom may ko fan wu gudd ba lépp lum nar a naa la liggéeyal ci yoonu Sëñ Tuubaa am ko danga ànd koog taalibe sëñ Tuubaa yëpp te di sant mbokki taalibe yëpp ak njabootu kër sëñ Abdul Xadir gépp buñ ci tuddee ña nekk ca bopp rek tudd nañ ñëpp mooy ku mel ne Cheikh Serigne Cheikh moom Serigne Abdul Xadir Mbacke nga xam ne moo nekk moo fi nekkal Cheikh Abdul Xadir ñu ko ñaanal fan wu gudd ak wér yaram ak njabootu sëñ Abdul Xadir gépp noonu la demee ci buntu kër Serigne Modou moom sëñ Abdul Xadir. di nuyu sunu kilifa sëriñ Cheikh Abdou moom sëriñ Modou Abdoul Khader di ko ñaanal fan wu gudd ànd koog wér ànd koog njabootuk sëriñ Modou gépp rek ak képp koo xam ne yaakaar nga sëñ Abdoul Khader. Mhm. bu am solo boo nga ko ci wàllu programme bi ginnaaw bi nga ko wootee am ñoo xam ñoom nga ñoom ñoom nga ko darajaale comme ni nga waaw loolu moom xëy na man naa am du lu lu jafee leeral ndax euh, ay ndaw yuy nam na ci yoonu sëriñ bi rek. di ci deflu jaaru yoon nit ñi nit ñi nit ñi di ci bëkk léeg-léegi ak njuum njuumte di ci am yoo xam ne dañuy gàggante waa tegaat ñu ci yoon boo gisee ren ñu tànnoon ci ay nit ñu baax ñu am solo mu mel ni mu mel ne sëriñ ji ñan kennal nga xam ne sunu xarita sunu wëllëre di nit ku baax mu def ci coono bu metti te lépp it la tax ñu def ko muy kóllëre gu ñu yàlla boole waaye na mel sunu waajur wi muy sëñ Basiir moom sëñ Abdou Xadar moom it macha allah ñëpp bëgg nañ ci moom waaye ku mel ne soxna Mouminatou Kébé nga xam ne yàlla daa def jaxasoo bi toxu ko woon a yàgg waaye muy nit ku am solo nit ku nit ku nitu valeur koo xam ne ay waajuram dana daa a fekkoon ci toolu sëriñ bi ñu ciy bay yaakaar naa kenn mënu leen ci woon moom it mu ñëw di ci bay waaram képp koo xam ne dégg na ko mu nekk ci yoonu sëriñ bi di ca nam na bi lépp lu mu dégg ci lu baax def ca aw ñaxam yaakaar naa bisu mbuur ba ba ma ko defee ñu defoon ko ci invité d'honneur bi ñu def ko ñu ñu ñu ko ñaar yëpp da ciy sonn coono bu bu am solo ba tey jii rek wax dëgg yàlla woo nañu téléphone di ñu massawu ci bis bi loolu nag kon kóllëre la ak yëg ndax euh, doomu aadama moom dafa am loo xam ne dañ ko koy doyee muy yëg ak fonkel te loolu matale na ko ci njabootu sëriñ bi yaakaar naa ku ne rek boo wéete da ngay jàpp ne soxna Mominatou yow rek la la la la féetal ci ak kóllëre te loolu mooy jëfi ku baax nga xam ne ku ku ku ku ku nekk ak yow ku ne rek day jàpp ne yow rek nga nga moom rek nga seqal moom it jëf ju rëy rëy rëy mu yebal ay ndaw yu am solo muy mel na sëñ Daam Ja ak soxna euh, sëriñ euh, Abdou Khadir Ñang mi nekk TFM ñoom ñoo fi ñëwoon ñu ngi koy sant bu baax a baax di wax ne ko bëgg nañ lool ci taxawaay bi. yàlla na ko sëriñ bi yokk yokk ak njabootam barke Seexul Xadim mu mel ne euh, ñooñu tim xam ne nii euh, di kenn di sa waajur di lépp muy Serigne Abdoul Samad ni am na lu am solo loo xam ne moom itam jëfati na ko ci li muy baaxoo ci waaw kooku nag moom boo boo ko tuddee rek daanaka dama yëg sama biiru xol loo xam ne maanaam du ma dana am ab tàmbali waaye du am yamuwaay ngir ci baax ci valeur ci jikko ju rafet ci xol bu laab ci euh, cig sell loolu na yaakaar naa bu ma ko waxee waxaaleel naa ko waa kër sëñ Tuubaa yëpp ndax bëri na la ma cay man wala la la la may mën a yëkkatee samay kàddu man naa am am na ñoo xam ne bëgg nañ ko tudduñ ko man damay wax ne nag euh, jëf ju baax boo ko defee bu ca nit ñi santu sunu borom moom dana la ko dencal fulal la ko bu ëllëgee te yaakaar naa ku mel ne Serigne Abdou samat jëf ji jëf ci waa Kër Sëñ Touba yi rawatina taalibe yi dama jàpp ne bu ko nit ñi du sant ba ñi ami nopp di ko di gétt moom sunu borom dana ko dencal denc goo xam ne ni làq la boo xam ne du yàqu mukk ndax euh, koo xam ne nii saa su gisee mbindee fub dooma aada mbindee fub sunu borom nga xam ne jaam la buy dox lam gën a jàpp mooy da ko war a teral loolu benn ci man mi biñ màggal suñu Abdou Khadir gi desee ay fan laa jekki-jekki mu yónnee ma fa ab waruwaay woo xam ne waruwaay woo am solo la yaakaar naa képp koo gis waruwaay wi da nga xam ne lii maanaam ku la bëggal lu baax bëggal la ab sag bëggal la ab yiw rekk lay jox lu mel nii te loolu ba mu amee it euh, li ma xamal ne nit ñi bëgg nañ lu baax te ñu ngi ñu ngi siifuur nit ku baax mooy sama waajur yëpp bi ma ca demee ci ñoom ndax dem naa ci Serigne Cheikh moom sëñ Abdou Modou Abdoul Khadir li ñu tuddee grandeur nga xam ne mooy muy nangu def nangu lu baax bi ma ko waxee ba noppi la ma njëkk wax mooy euh, da baax di sant waaye man mii ba may doog jugee ca daara ja euh, lal ba ma ba ma njëkk tëdd moo ko wut jox ma ko. xam nga bu ci ci daraja ji ko yàlla jox bu ko neexoon du wax loolo waaye di ma wan rek lii du ta du gan mooy sëñ Abdou Samad yàgg naa jëf lu baax lu mel noonu te képp koo xam ne ni sab nawle nga wala muy kilifa foo taxaw gaare ko fa danañ xam ne lim la jox maanaam dalay wóor na bu yoroon àdduna ak la ci biir mën na laa jox lu ëpp loola loolu nag dama koy sant ci ci samay mbokk ñi nga xam ne moom ñoom laa bokkal ak sëñ Abdou waaye di ko sant ci taalibe yi di ko sant it njabootu sëñ Tuubaa gépp di waxal ne defal na ma jëf joo xam ne xam naa ne eh, loo li muy firndeel mooy bu yoroon àjjana tamit maanaam man bu ma taxawee xam naa ne sama dugg dana yomb rawate na nag lii nga xam ne ne mooy àdduna jii ñu nekk nga xam ne eh, dafa bokk ci jumtu jumtukaay yoo xam ne eh, dana mottali nit ci ab liggéey bi mu bëgg a liggéey mu tànn ko bu fekkoon dañoo mas a toog ma ma ma ne ko waruwaay laa bëgg wala ma diis ko sama soxla yoo xam ne nii daa xam dana xam ne man maa ko diis te munta ñàkk loolu it bu ko defoon dana neex ndax yitte ju ma ko wax la eh, la laa ma ca gën a neex mooy koo xam ne boo leen toogee doo xalaat sax ne bàyyi na xel loolu mu jekki-jekki bettee la lu mel noonu ci surprise mu jëf ju neex nag ju noobul kon nag moom daa yàgg def lam baaxoo def ci lu baax loo xam ne ni bëri naa ñoo xam nee naa bu fekkoon teraangaam képp koo xam ne defal na ko defal na la ko euh, te nga war koo mën a fesal yaakaar naa bu fekkoon nañ ne kuñ ko defal nga saxi béjjën yaakaar naa dañu xam ne def na lu baax ci dëkk bi nag loolu nag day jot ci ñi ko man di wax ñuy leeral ndax it nit buy dund di def lu baax mat na di leeral ba nit ña nga xam ne dañ koo umpale man di xam ne jëf jooju baax na loolu moom man na di leeral nit ña xam ne taalibe sëñ Tuuba sëñ Abdou Samad eh, taalib bi sëñ Touba la saadeex la nit ku bëgg lu baax la kon nag loolu moom dama koy fàttali nit ñi di ko fàttali sama bopp di ko def ci ay yu bëree bëri yoo xam ne eh, tabe munta weesu yore li nga yore lépp nga jox ko nit ñi ba mu jeex ba yorutoo dara te boo yorut loo mën a jox nit ñi sax doo sawar a génn tab foofu la mën a yem man yim ma defal yëpp bi eh, bu yemoon ci lam ma defaloon dane woon sax jërut di nettali jërut di ko wax maanaam loolu ca nam waxee dégg naa nam waxee mooy bëggut toon sax kenn xam ko waaye day am loo xam ne boo la ko nit defalee ci àdduna te man xawuma kañ la may yàlla soxla da ngay leeral lu baax lim la defal ngir nit ñi mën a xam ne kii nekkete lu baax li mi ngi koy def dafa am bis boo xam ne damaa woo ne ma Ismaïla bu timisee nag ma fekk si boori kër sëñ Saliou ma ñëw fekk ko fekk ko fa ñu ànd duggandoo ñu dem ba ci barabu ku tedd ki ñu ubbil ñu ko xam nga ko la yéenewut bëgg lu lu baax du def loolu ndax kii ñëpp sàkku di wuti ji moom moom mu am mu am possibilité man faa dugg mën a ñaani soxla soxlaam lim bëgg xëccaale la nga dem bëgg na say aajo fajo loolu nag mooy li ma gënoon a marqué ma xam ne kii nag maanaam lépp lu ñu wax lu ñu wax ci moom ci mbaax maanaam am na loo xam ne nit ñi umpale nañ ko loolu nag ba mu ma ko defalee ba noppi nag ba ñu gën a ne bu ko kenn nett jërul di kenn nett nettali maa xam ne lam ca bëgg man xam naa ko waaye nag day am loo xam ne di ko wax it munta ñàkk ci nit ñi xam ne ndekete euh, kii mi ngi def lu baax rawate na njabootuk sëñ baax gi nga xam ne ay tut tànk lañ nga xam ne benn bu dee waajur mën nañu waajur fuuf mën nañoo jur waaye buñ ne boo nekkee buñ nekkee moom day mel ne ay moroomam lañ nekkal ci ci ak woyof ak kaf loola bég loola ba ba ba cër bi nga am ci moom nga am ko ba noppi booy dem mu yëkkati teraanga defal la ko te loolu am solo la. Mm-hmm. ngir ñu woote ñëw moom moo foofu bi nga woote waaw loolu it xam naa danaa ci sant bu baax a baax waa daayiratu Euh, bi nekk HLM muy génération surtout imam di sant sëñ Dame mbay jiit njiit la ak soxna Mariam Dieye bu ma ko tuddee rek tudd naa ñoom ñëpp damay bañ di juum ak Isine Galas sëñ Xaadim Ndaw ak Ndakaaru sëñ Cheikh Ndiaye ak Daaru Rahman muy soxna Kumba ak sëñ Xaadim ak Mbuur muy Pape Fall ak soxna Fat Dieye sant naa daayira yëpp ak mbokki taalibe yi fi ñëwoon yëpp ak njabootuk sëñ Touba gi fi ñëwoon yëpp mooy muy góor jigéen mag ak ndaw ak seexi sëñ Touba yi ñëwoon yëpp ak képp ko xam ne amoon nga yéene di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp ngërëmul sëñ tubaa di am loo xam ne nag danañ ko ci doole mooy sunu waajur sëñ basiiru moom sëñ Abdul Xadar ndax moom it mënumaa wax ba noppi te duma jàll jàllale kàddu ci moom ndax man samay bàyyi yàlla dama cee defub cër ñoom ñëpp mu fonk te fi ma fas ne teg sama tànk mooy liggéeyal sëñ Tuuba rek ci sama kemtulaay kattan ma am wayjur yoo xam ne nag looy góor góor góorloo it boo jàddee nañ la tegaat ci yoon te da nañ la koy tegee dana tax ñu xam ne nit a matut loolu nag ñu ngi ci sant sëñ Tuuba ku mel ne Cheikh Mamadou Bassir moom it bi ma bi ma bi ma sëñ Abdou sama joxe oto bi dama dem ci sëñ mos euh, sëñ sëñ Cheikh Abdou moom laa njëkk dem dem ci sëñ Moustapha moom sëñ Abdou Khadir bi ma ko woonee mu ñaan ci ñaan ne ñun la ko defal sëñ Bachir moom sëñ Abdul Xaadir it ba ma fa defee ba ma fa demee moom it yaakaar naa loolu barki démb la sax mu sant ci lool ñaan ci ba noppi nag soo ñaan ma kàddu biir ndax dayam loo xam ne kilifa bu la ko waxee muy waxi biir yoo xam ne eh, yéen ñaari rek a ko dégg yàlla dalaa jubloo soññ jublu laa jublu laa wax ne la fi nga war a teg sa tànk nangu ko xam bu baax loolu nag eh, kàddu yi dégg nañ ko te danañ ci góorgóorlu suñu kemtul ay kattan waaye royteef gi it nga xam ne euh, dañ ne boo bëggee yegg fa mag ña yegg da ngay xool ña tegu ci yoon wala ña jaar ci yoon nga jëm leen a roy loolu yaakaar naa waxtaan nañ ci waxtaan woo am solo te loolu it euh, ginnaaw yàlla bu ñu amee lu ñu jomm yu ci bëree bëree bëri ginnaaw yàlla moom it jëmm ma tax ndax fi ko yàlla teg position bi mu taxawee rawatina kër sëñ Abdul Xaadar nga xam ne euh, fi la faree ci njabootu sëñ Abdul Xaadir waaye yàlla jox ko cër bi nga bi mu ko jox ci yoonu murit muy yoreel kaddu waa kër sëñ Tuubaa yëpp ak taalib yëpp ku noonu léegi léegi ci matadik doomu aadama ak ñun nga xam ne at yi demeegut noonu léegi léegi sax ngay bëgg a def loo xam ne ni boo ci xalaatee jëmmam rek da ngay reculer ngir euh, fu ñu waxee buñ tuddee euh, sa tur wala ñu tudd keneen seen xel dañuy fa moom lay njëkk a dem ba tax na fas yéene nañ ñu lépp loo xam ne ni luy nuru ne danañ ci jaare yàpp yoonu kër sëñ Abdul Xadir wala kër sëñ Tuba danañ ci moytu suñ kemtulaay kattan te bëri na lu yuñ xaw a moytu léegi ku ma xamoon xam ne euh, am naa lu ma wàññi lu bu baax a baax jëmmam laa ci rus ndax xam naa fi mu ma tegit te am na fa foo xam ne bu la fa tegee it bëri na loo xam ne nii war nga ko ci rusé ngir luñ luñ luñ xalab lu ne rek mën naa am ci moom lay delluwaat waaw loolu moom moo tax ñu ngi ñu ngi kii bu baax rek Hmm. Hmm. Hmm. waaw kàddu yu soñña yi mooy di sant taalibe yëpp rek ñu gën a góorgóorlu ci yoonu sëriñ bi te xam ne adduna moom la ca am solo rek mooy mujj gu rafet waaye li am solo ci ab taalibe mooy doon am murit te dëggal te doon murit saadix kon nag nañu gën a jàppal sëriñ bi te ki ñu yàlla cërale mooy Cheikh Mouhamadoul Mountakha ñu fonk ko bu baax te ñaanal ko mu gudd fan ak wir ndax sag la ci yoonu murid ñi te mi ngi ñu xemmamtiloo xasida yi di ñu xemmamloo sëriñ bi te loolu rek ci la nekk kon nag ku nekk ci yoonu sëriñ bi wala nga bokk ci sëriñ bi sagaleel sëñ Muntaxa jaar ca yoonu wa mu bëgg mooy ku war a sakku xam-xam nga dem sakku ko koo xam ne ni am nga kilifa nga jéem ko wek man loolu laa sant ñëpp di gërëm ñëpp nag di ñaanal képp koo xam ne ni yaa ngi nekk ci bopp ña nga xam ne ñoo war di liggéeyal sëñ mooy njiit yi kilifa yi ñu ñaanal leen suñ borom defal leen seen liggéey maanaam mottaliku ci jàmm ak salaam wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.